lii nag du suñu xalaatu bopp président de la république moo ñu ko digal na dem leen ngeen déglu nit ñi ngeen diisoog ñoom te ngeen jëf bañ a yem ci waxtaan kese ndaxte lii ma fi dégg tey wane na ne waa marché bi sonn nañ waaye monsieur le maire Talla Sylla la wax na ko tamit askan bi sonn nañ ci marché yi. loolu nag du seen faute yéen kese dinaa leen wax seen fóot lan la li nga xam ne moo am. mooy mën na am défaut de planification wala défaut d'organisation ndaxte dëkk buy màgg dañ ko war a bàyyi xel bu fekkee marché yi bañ koy defar téeméeri commerçant la taxoon jóg ñu dem ba mu doon junniy commerçant war na am lu ñu def du dëgg bu ñu demee ba nga xam ne euh, sëlëbe yoon yeeg tali yi ñi ngi joxe ay jakarta nit ñi di ko jël te teguñu force de police yoo xamante ne li leen war mooy soññ leen ak yar leen ci sol casque ak bañ bot ay jigen yu warul wala jigen ju bot lol tamit ñun état amna ci responsabilité waye nak dafa am lo xamne ne buñ ko waxtane jëf mënu ci ñak marché yi deug la señ Badou mbay wax ko sank marché dañ ko dañ ko wara défarat dañ ko war a redimensionné bo boo lo sax président ci budget at yi rek commencé nako ci yenn dëkk amna na dëkk yo xamne defal nañ leen 3 milliards di tambali nak nag nag té Sénégal nag lu dëkk bi dox dox lepp mënul nek ci benn bëss donc dañ koy tàmbali waaye ki nga xam ne at mu jot mi ngi bind ci budget trois 3 milliards ngir defaraat marché yi seetlu na ne marché yi problème la circulation bi problème la ñu nag li ñu andi woon mooy déglu leen ndaxte réew mi am na fu mu toll ci màgg foo xam ne menuisier yi faaw ñu wutal leen bërëb menuisier métallique yi faaw ñu wutal leen bërëb commerçant yi faaw ñu wutal leen bërëb jaaykatu jën yi faaw ñu wutal leen bërëb ndaxte buñ ko deful gis ngeen ni dëkk bi mel yenn saay boo nee chauffeur jaaral bërëb sàngam mu ne mënuma faa jaar ndaxte waxtu sàngam day bloqué te dëkk yu normal yëpp amul fa dafa am loo xam ne loo jàmbaar jàmbaar lu ñu la yërëm-yërëm am na loo xamante ne kenn mënu ko justifier mooy li ma gis sànq mooy otoraay boo xamante ne ay raay ko tax a jóg nit ñi génn marché bi ñëw teg fa seen i jën di jaay loolu benn njàmbaar mënu ko justifier dañ waxante dëgg rek ñëw fekk muru centre de santé nga toog fa di lakk keccax sangat si di dugg ci ñi feebar loolu benn njàmbaar ak benn góorgóorlu ak benn bëgg euh, daan sa doole ci ngor mayewu ko donc moo tax may leen yaa ngeen muy wax seen coono yéen waa marché bi dëgg la war nañ ci jóg waaye coono waa dëkk bi ci waa marché bi tamit war nañ ko wax ndaxte liñ fi seetlu ak du marché bi marché bi war nañ ko defaraat war nañ ko warul déborder marché yi warul dem fekk ji otorai yi léegi nii lañ ko otoraay bi di egsi saxaar gi di yuuxu di egsi xalé yi yor di soti di soti waasintóor yi di soti lepp loolu du yoon nañ waxante deug mais ñun tamit dafa am lo xamne dañ ko warlo mo xam waxtu la mo xam ben samedi la ñu dajalo jël suñu environnement défar ko loolu dafa war farata la loolu mi ngi bëgg doon farata buñ ko deful rek dëkk bi dina egg fo xamne waxna leen ko duñu gisati touriste té li foko gis rek nit ñi ñoy di xéxante seen biir ya sorti sama mbalit sama buntu kër ya def nangam ak nangam té loolu warna jom jomb Sénégal loolu Sénégal warna ko weesu faaw ñu sétal dëkk bi monsieur le maire faaw ñu organiser rue yi ba nit ñi auto yi di mën dem di ñëw rond point yi faaw ñu libérer ko ndaxte taxu ko il faut il faut nañ ko dégg que ñi dawal Jakarta di sol seen casque te xam seen droit fan la yem donc loolu faaw président tàmbali na ci te monsieur le maire wax na leen léegi 4 hectares wala 4 hectares yi nga xamante ne joxe nañ ko ba fi mu ne nii lettre de couverture budgétaire moo ci des nga xam ne président ñëwul teg pose première pierre bi ndaxte bu doon loolu la rek day yomb nekk ci campagne def ko waaye xaar ba couverture budgétaire bi am mu ñëw poser leen première pierre dina am waaye nag waaye nag attention li nga xamante ne ñun la lu ñu war a warloog askan wi mooy setal di sellal di moytu saxaar yi di romb ñuy dem di fa jaay nga xam ne dañu mel ni dëkk yooyu nga xam moom la ñuy yónnee ci Facebook ñu koy seetaan loolu ëpp naa am ci Sénégal te man de en tant que maa ngi fekk maa ngi ministre de l'hygiène publique du ko seetaan wax naa leen ko sànq ci réunion bi dañ ma ne na dëkk bi jag man nag dëkk bi jag moo ma gënal man ma jag wax naa leen ko dinaa ci xaar sama tànk tubéy asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf